si je me rappelle. amoon na polémique ñu ne GIGN la leen bëggoon dugal gendarme yi ñett na dund. waaw ah, ñu ne kon dañ leen yóbbu police. Mhm. defal leen formation accélérée rattaché leen bip xaw ma gars yi yóbbu leen formation États-Unis ñu ñëw ci leen leen rattaché. loolu moo indi benn précédent bu dangereux. mooy après bépp garde corps. bu ñu bëgg a dugal. bu topp sa leader politique. bu faloo yaakaar nga intégré sécurité rapproché wu président. c'est moo tax j'ai ko aimé le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. fekk mu dissocier sécurité personnelle am. waaye mhm. mhm. ak sécurité. primature. primature. loolu dafa am solo. c'est important mu ngi noonu donc juste pour dire que. loolu wax nga ko léegi mooy précédent bi nga xamante ni tey jii nii amaana moo ñu indi ci problème yi nii yëpp. waay Jérôme moom tamit nekk ci pendant des pendant des années. tey mm. mu dem ba doon en tout cas euh, garde rapproché premier ministre ak yu mel en facilité bi ñu ko mayoon accès bi ñu ko mayoon moom tamit il a utilisé ça pour tey jii ni arriver à et malheureusement loolu moo indi problème yu baree bari fii Sénégal on se rappelle les de feu ak affaire yu kenn xamul yoo xamante paas paasan wax na ko léegi ils ont toujours été violents seetlul depuis campagne bi en 2011 doon gis yenn scènes yoo xamante ni lay leer ni lii ñuy def ni du dëgg du yoon malheureusement il le mais boobu psychose sénégalaise fa lañ tolloon na changement am na Ablaye Wade dem hmm. na Macky ñëw donc lu mu mënti def baax na et je pense que ce sont des trucs yoo xamante hmm. depuis le début hmm. ñu ngi ko doon gis mais malheureusement gis bàyyiwuñ ci woon xel laataa ma ñëw ci dernier bi ngóone dafa mel ni Ousseynou Fall euh, euh, ñu ngi ko doon sànq ñaari woon ngi lay nuyu. waaw ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet ki lay seetaan ci biir Dakar bi. waaw ñooñu nii Sénégalais yëpp euh, ñu def nuyoo bi ki nga xamante ne mooy président de la République monsieur Diomaye Diakhar Faye. Mhm. ak premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. ñu ngi Sénégalais bu ñuy kilifa diine kilifa aada d'accord ngeen tàmbali xiifal boobu ak léegi euh, lan moo war a laat ngeen a man nekkat ci jafe-jafe yi laa tàmbalee jox Pape Ousmane. Mm-hmm. allo Ousseynou. Mm-hmm. allo. waaw wala peut-être ñu ñëw ci ak moom après ah waaw parce que dafa mel ni fi mu nekk dafa am problème de réseau nañ dem déjà ci dernier cas bi en attendant xëy na réseau bi di mm. jàppandi muy jëm ci perquisition ci dossier Lat Diop waaw Euh, euh, dossier Lat Diop euh, bokk na ci semaine bi lee ci dossier yi gën a fees yoo xam ne ñu ngi ko doon waxtaane ci presse bi muy wàllum corruption bu toll ci cinq milliards de francs CFA diggante patron bu Xbet Sénégal Mouhamed Dieng mi nga xam sax démb naam def nañu communiqué ne doomu tànk yooyee ameetu ko ak ancien directeur général bu LONASE muy Lat Diop pôle judiciaire financier di PJF ginnaaw feewu blanchiment de capitaux la ñu ubbee mbir moomee ak détournement de deniers Mm. Euh, waaye ay avocat yu Lat Diop moom dañu waxoon ne ginnaaw euh, mbir mi daal dañoo jàpp ne dañuy euh, teg doole ci kaw wala wàllum politique moo ko waral dem nañ sax mbay wax ne corrupteur ak corrompu yëpp ci législation sénégalaise bi code pénal sénégalais dafay distinguer corruption active bi nga xamee ne mooy lu fekk corruption article 159 ak 163 ak corruption passive bi ñuy wax ne moom lu fekk corrup le corrompu di article 156 à 158 ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk wax nga mun am li nga xam ne moom mooy sanction ñu ngi doon annoncé également que itam kii euh, di euh, Mouhamed Dia ñu ngi koy xaarale ci Ndakaaru euh, ngir mu amal confrontation ak ki nga xam ne moom mooy Lat Diop ñuy fàttaliku itam le 13 septembre Mamadou Gueye mi nga xam ne itam moom moo nekkoon fii ci entreprise bi di LONASE moom itam daal dinañu ko woon woo ngir daal di am li nga xam ne moom mooy audition tey ji wax nañ ne itam bàyyi woon nañu ko mu ñibbi waaye ginnaaw perquisition bu ñu def démb dañ ko oowaat ngir mu ñëw uy si foofee Euh, ci division des investigations euh, criminelles Lat Diop nag euh, démb bi nga xamee ne 13h jot na ci lañ ko yóbbu ca këram jëlee ko ca foofee ca fi mu nekkoon en garde à vue du commissariat bu port mm. yóbbu ko këram amal fa li nga xam ne perquisition balaa ñuy pare nag 18h la ñu fa daal di génn mm. mu ànd ak éléments yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci division des investigations criminelles communiqué wuñu ci li ñu fa nekk ban heure ba la ñu ko yóbbu këram. environ 13h li ñu la ñuy doog a <laughs> daal di ko yóbbuwaat fi nga xam moom mooy division des investigations criminelles jot nañu ne tey jii peut euh, mën nañ ko euh, yóbbuwaat ci kanamu euh, procureur bu parquet judiciaire waa parquet financier boobule ñuy fàttali nag ni ko incriminé ci wàllu corruption bu toll ci cinq milliards de francs fa hmm. am na ñu xëy tey ci presse bi wax ni doon nañ seet waaye gisuñu dara ñoom ku leen wax dañ ànd nekkoon ak enquêteurs yi wala kon ci yow mooy gis nañ cinq heures de temps ngay seet ju ne gisoo dara dafa am wax bu yenu maanaa perquisition bu durer cinq heures de temps ku hmm. gisul dina ko def perquisition kañ bu jëlee temps dafa am looroon gis di ko sele di ko photocopier di jël ay pièces à conviction mais ku gisul hmm. non liñ gis moom xaw ma ko waaye daal xam naa ni sono bi APR campagne hmm. Mohamed Dieng mii moo ko jënd te kër googu lañ ko déchargé sono biñ campagne en deux mille euh, deux mille vingt quatre élection yi présidentielle waaw présidentielle yàggul ah. kër googu lañ ko déchargé lañ ko réceptionné te moo tax man la Mohamed Dieng nañ gas ban lien la amoon ak Lat Diop ak waa APR. waaw parce que amul te moo ak Lat xëy ñu bi sa xiiroo ngaayoo lan lañ seqoon voilà. Lat Diop waa APR nee nañ ko bàyyi. pensé ñu ngi ko doon scandé barki démbo Ndiaye bi Amadou Ba doon dalal di annoncé coalition. ñu jàpp bi tegul ci yoon yow sama waay léegi am dara lu ñu war a firnde sama waay nga de waaye say laaj yéen say say façon yi laaj accam <laughs> waaw laaj jot waaw ah dañu bàyyi mbir mi tegu ci yoon fa mu war a tegu nit ñi topp jël naa jëluma jëlal joxeel wàññiwu ma jokk naa ci bokkuma ci ci laa bokk am na ñu kaa dox ñu ngi kaa lijjanti moom kay réew mi fi ne nii da réew mi dafa nekk ci yoonu neex te bu ko kenn yàq da wax bi réew Sénégal dafa nekk ci yoonu neex te yàlla bu ko kenn yàq léegi nag léegi la tendance yaa ngi gis Sidi Diop waykat waaw mu naan léegi maa gën a jub règle ah buñ ko si la tendance mm-hmm. sauf ko nag Baye Assane bu nekkee ci ruqam moom du bëgg a jub loolooy problème bi on a une nature léegi comment il faut faire pour changer tout cela ça va prendre du temps aussi ah. waaye li war a jaar yoon moom un temps soit peu moins zéro la rek plus zéro plus un di yéeg ci lat la ñu toll ak ña des dinañ dina dina àgg sëñ bi ñaan yàlla jàmm rek lépp egg si jàmm ak salaam ku jël joxeel del lool ku jëlul nekk si jàmm

on l'entend vraiment. est-ce que duñ ko jéem a. waaw nañu xaar ñu wala ci téléphone parce que dégg-dégg moo xaw moo xaw a des ñëw ci ak ci commenté bi. ci fin bi dinañ ko mën a jëlaat. Mhm. pour mën a xam en réalité ñoom militaire invalide yi lan la ñuy sàkku ak lii seen jafe-jafe jamono ji alors com euh, euh, dañuy dem.